fas yéene ànd ak yéen ci seen émission kër gi ni ñu tàmmee di ko def euh, saa sune waaye nag euh, dañuy sant yàlla bu baax a baax julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur bu wér a wér gërëm sunu wasila gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa sune ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëme ko ci ñun doore ko rek xanaa ci maladie tëdd ci hôpitaux yi ak ñiy weyale seen i jàngoro ñëpp ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a delluwaat euh, ci seen activité ñi caabi féete ginnaaw itam nekk ci bërëb yarukaay yi ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa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 teg ñëpp ci yoonu mbaax yoonu njub yoonu siraatal musaxima ëllëg bu ñu jàkkaarloog borom bi mën a am ngërëmam yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla defal bépp kilifa diine boo xamante ni yaa ngi ci àdduna bi kilifa aada itam ñu ñaanal leen la ñu namm ci réew mi yàlla mottali ko ba yaakaar gi nga xamante ni amoon nañ ko ci ñoom ñu ñaan saa su ne rek yaakaar joojee bañ a tas waaye ànd lu mën a xew rek nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi ñaanal la jàmm ak xeewal ak sutura ki teraanga ñaanal ko itam mbokk yi nga xamante ni ñoo taamu émigré ji ci réew yi Afrique yi wala ci réewi nit ñu weex ñi ñoom ñëpp bana gannaaw ba ñu leen nuyoo ngën gi nuyoo di asalaamaaleykum euh, ci biir seen ngën gi télé di la 2STV mbégte ak bànneex rek la ñuy àndal saa su ne di toog fii di waxtaan ak ñoom rawatina nag euh, période bii nga xamante ni ni ñu leen ko waxee rek mooy seen anniversaire kër gi mu nekk nag euh, période boo xamante ni wax dëgg yàlla bëgg nañ ci ànd ak ñëpp ñi nga xamante ni ñooy seetaan 2STV euh, waaye itam ñi nga xamante ni ñooy seetaan itam émission kër gi di ci jariñu itam mën a jaar ci téléphones yi lépp nag ñu bokk kook ñoom semaine bi yëpp ñu jaaree ci 88 628 69 69 wala 00 221 33 841 09 31. mu doon nag euh, émission boo xamante ni wax naa leen ko semaine bi yëpp dama fas yéene ànd ak ay gan. ay gan yoo xamante ni ñun ak ñoom ñooy bokk liggéey bi ay gan yoo xamante ni soit ci biir kër gi la ñu nekk wala nekkuñ ci biir kër gi ñu ngi ci biti waaye ay gan yoo xamante ni itam yàgg nañoo liggéeyandoo ak ñoom nekk itam ñoo xamante ni seen xam-xam rafet na su ko defee ñoom ñëpp ñu fas yéene ànd ak ñoom ci biir suñu émission comme ni ñu tàmm di ko defee saa sune ne waaye nag ni ma leen ko waxee rek dama koy bokk ak yéen cinq ans déjà émission kër gi am ko lan la leen apporteel lan ngeen sentir ci biir émission kër gi lan mooy li nga xamante ne suñu leen ko ci dollilee dana leen neex wala lan mooy li nga xamante ne suñ ko ci wàññee dina doon li leen gënal ndax saa su ne rek li ngeen bëgg ci la ñuy dox euh, kon dafay jaadu ñu taataan leen suñu nopp gannaaw bu ngeen jaaree ci téléphone yi su ko defee rek euh, ñu dégg euh, déglu leen ci li nga xamante ne bëgg ngeen ko ci seen émission kër gi bëgg ngeen koo laaj ci soxna Mbaye ak liggéeyam na muy demee ay jaar jaaramam ak lépp parce que fi mu nekk ni dara dootu fi umpe ndax bëgg naa lépp loo xamante ni rek dund nañu ko laataa ñu yegg si 2STV ba ba ñu fi yeggsee doon loo xamante ni du leen ump yéen ñi nga xamante ni yéenay toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan wante li ñuy def mooy rek wax naa leen ko émission bi damay am sama gan ñuy xaarandi nag euh, ki nga xamante ni mooy euh, El Hadji Bécaye defe naa ni yegsi na ci fi nga xamante ni mooy euh, 2STV le temps que ñu koy dalal rek dañuy daal di dem ànd ak régie su ko defee rek ñu dégtal leen benn clip ngeen mën ko seetaan ñu dellu si àndaat ak yéen ci ni nga xamante ni rek noonu la ñu tàmm di ko defee lépp nag ma wax leen ko yar ak teggin lay doy. tekk ak tey discipline bu mat sëkk yéen ñi nga xamante nii euh, juróomi at yàlla ñu ngi ànd seen cofeel ngeen di ko gën a fësal man li may wax rek mooy awma ma seen pay da ngeen wax ne ñun ñoo leen defar waaye yéen yéen a ñu defar ndax damay faral di wax ne xale bu d'accord gi sànnante dafa dëggu xeer te it nag am na noo xamante ni bu ñu ko ni doxalee ci kër gi léeg di yoot di jàppale nit ñi booba dafa fekk ne am na foo xamante ni fa lañ ko teg fañ ko teg nag du fenn fudul buur bi yàlla mi nga xamante ni moo ñu teg ci yoonam jël ay doomu aadama teg ci sunu yoon su ko defee rek mu fas yéene jàppale ñu ci ñu taxawu ko ci doomu aadama yooyu waaye nag ginnaaw yàlla am na ay ñoo xamante ni ay bonne volonté lañu am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, yàlla mm, defal mën na leen gan waaye itam yàlla def na ci seen xol mën a jàppale ak mën a dimbalee ba tax na saa su ne ñu ngi ñuy jàppale kon ñooñu ñëpp dañ leen di remercier su ñuy wax dañuy wax ne télévision dafa metti yaa ngay solu yaa ngay lii ak nangam sangam bu ñu ko seetee jamono bi ñu toll naam dina metti léeg de ndax di nga ko jënd di nga ko wuti te am na ci loo xamante ni yaa koy bëggal sa bopp waaye nag am na tailleur boo xamante ni mu ngi ci koñ bi la ko yitteel du dara lu dul jàppale ki nga xamante ni moo nekk ci télévision bi dinaa ñëw ci ñoom ñëw itam ci ñi nga xamante ni dañu yor seeni i ñaar wala mbub mu rafet mu ñu romb yaakaar nañu ne mu soxna Mbaye nga ci jekk wala moromam toog ca tele ba ma sentir ne kii maa ko jox mbub mi mu sol kon loolu dañu leen di remercier ci loolu yooyu yëpp dinañ ci ñëw incha allah ci jaajëfal goo xamante ni dafay jóge ci man jëm ci yéen ndax ni ñu koy waxee rek bu du wonteeg yéen mbir mi dana ñaaw lool bu du wonteeg yéen du ñu am courage yu yeggale bu du wonteeg yéen tey amaana jamono bii bu ñu toggee di wax mu leer ni la ñuy wax saful kenn dinañ lem suñuy bagage dem seetiwaat leneen waaye nag ndokk yàlla bi nga xamante ni saa su ne bu méttee bu ñu gersoo yem ci yéen ñi nga xamante ni yéenay seetaan seen émission kër gi ñu dem régie seetaan benn clip le temps que ñu dalal sunu invité su ko defee dellu siwaat àndaat ak yéen ci seen émission maa man sama benn rakk boo xam ni moom moo topp si man nekkoon Côte dans les années ay quatre vingt quatre vingt dix yooyu mu boo ñu ñu am contrat mu bind ma un jour ni ma Côte d'Ivoire vraiment dafa métti ma ne ko comme Côte d'Ivoire dafa métti léegi mun ngeen ñibbi man am naa fa kër bu ngeen demee ngeen toog si kër gi et mun naa leen amal oto aussi bu ngeen xëyee def seen kalandoo am seen dépense. man damay benn benn jigéen boo xam ne j'étais chrétienne catholique laa woon catholique boo xamante ne bu fervente boo xam ne dama doon topp sama religion convenablement benn jour ma tasanteeg benn waay. boo xamante ne topp ma topp ma topp ma topp ma topp ma ba sëy ak man tuubal ma. man nag jaaxle loolu moo ma fi indi gannaaw yàlla nag mbay laa ci man la Mariam Baro man jógee naa Gambia pour mu ñëw fii isa sama yaay bii naafta yaaye dagga naa ko. dem na Gambie. bon ma yónnee ko xaalis pour mu mun a déplacer wu Côte d'Ivoire jëm si Sénégal mu yónnee jabaram ak ñetti doomam moom mu des fa ne ma dama fi toog pour au mois mu des fa ak benn doom bu ndaw boo xam ne sama papa la ko tuddee woon moom sama rakk la parce que xaw ma situation bu mu nekk waaye dinaa ay turu doomam bu leen déggee mu xam leen doomam bi gën a tuddee woon ñu tuddee ko Pape Djibi. bi ma tubbalee ñuy sëy maag moom di sëy maag moom àddina dox ma am ak moom ñaari doom bi ma amee moom ñaari doom ñu toog ba yàgg mu ne ma moom daal bëggatul bëggul doom bu bari ci ñaari doom yi daal lay yem. moom ko tuubale ba pare mi ngi tudd Ami Mbaw mais avant muy tuub mi ngi tuddoon Adjo Abro Simon. boronke yi moo ne ma ñëw fii. Mhm. pour ma sësee daal su ma mbëgg un mois après sama benn part boobu nekk ah bind ma ne ma ah sa frère bi day dem na dafa xëy rek dem kenn xamul fu mu dem. sa yaay kan la nekkaloon bi muy gaañu. Hmm? sa yaay. kii kër Bakaransu. ana Bakaransu. mu que suñu demee ba Gambie di ma wan Bakaransu. waaw. est-ce que mën nga ma yóbbu ba wan ma kii yaayam ak papaam fu ñu dëkk. soo agsee kër gi boo ne salaamaaleykum yaayam ak baayam ne ko maaleykum salaam. dama bëgg nga ni tekk toog man lu am dina leer yaa maa dégg waxuma la dama lay forcer nga dem Banjul. benn bés mu gis benn waaye waaj na ko yow sa frère mi ngi fii boo ñëwee daana ko woon bu mu ñëwee ëllëg si si ñëw toog di waxtaan waaj waaj na ko gis nga démb ba ngay waxtaan ak man sa frère mi ngi nekk en face dañu xool. ñu toog ba yàgg mu ne ma léegi naa jël samay bagage ma dem sama yoon ndaxte moom mënul nekk di jur jur bu bari. fii maam ñoo bokk ndey ak baay sama pap sama yaay gaañu wëcc ko ginnaaw sama magu yaay ba mu bokkal ndey ak baay mu ñëw ci dëj bi ba mu ñëwee ci dëj bi nag mu jël xale bi yóbbu ko da koo sàcc yóbbu ko. sama papa gaañu na sama nijaay bu ñu yaroon gaañu na sama mag bi nga xam ne mu sonoon si moom di dem guddeeg ba ci dem dëkk yëpp di ko set gaañu na muy Demba si weeru koor yi passé la gaañu. ma di ko ñaan ngir yàlla ñu mënuñu toog fii tranquillement nit ku nekk mbokkam la am te mun naan wax na ñun rek ñoo fi des comme ñun ñaar ñoo fi des bu suma saako xam suñu mu nekk xam ay doom parce que ay doom mi ngi fi. waaw wala wuñ mais doom dafa soxla ndey ak baay seen yaay fi aussi. fuerte. du lee bi neen Abdou Guité Seck ñu koy nuyu du nuyu képp koo xamante ni yaa nga diwaanu Ndar toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan. waaye ni ma leen ko waxee rek euh, kër gi ay gan lay am ñoo xamante ni man ak ñoom ñoo bokk liggéey bi li may def mooy damay bàyyi El Hadj Bekay mi ma dalal tey su ko defee rek mu nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi ñu waxtaan ci lépp loo xamante ni dafa jëm ci nekkin bi ci kër gi liggéey beeg na muy doxale waaye tam ni nga xamante ni noonu la ñuy nekkee itam ci jàmm loolu yëpp bëgg nañ ko dégtal mbokk yi di wax na rek mën ngeen a àndandoog ñun euh, ci téléphone yi mën a